asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci jamono ju nekk saa su ne mbokk yi mu mel ni rek suñu yëkkatee itam suñu kàddu seen xel tamit day delluwaat seen jotaay bu am solo bi léegi seen jotaay kàggu mag ñi mbokk yi tey ñu ngi fii itam ak Serigne Abdoulaye borom euh, xalwa a baax balaa ñu sabri ñoo leen nuyu bu baax di siyaara di rafetlu invitation bi di la ziar baax a baax di nuyu mboolem ñu seetaan. Mhm. jërëjëf sëriñ Abdoulaye borom euh, xelwa tabarkàlla ci jotaay bu nar a solo lool mel ni euh, saa su ne itam dañ koy gis euh, yoo xamante dafay faral di dem lu bare bari te bu ñu la laajte kay mooy sëriñ Abdoulaye borom xelwa lan nga ñuy tontu ak tamit dëkk yi nga xam ne jël nga faa jaar. waaw sëriñ Abdoulaye Niane moom mm, doomu soxna la di sët sëñ Bara rek day def nañu Mali. Guinée Togo Niger Nigeria Ghana Tchad dem di dolli ko xam-xam gannaaw bi ñibbi ñibbisiwaat nag euh, di yëngu ci wàllum ñaan loolu yëpp ba fa demee da nga dem pour sàkku xam-xam rek waaye xam-xam ku ne xam ne am nañ ko parce que ci lañ judd parce que famille ñaankat la famille ñaankat la sëñ Touba moom ku ne xam ne tubaarkat la. waaw kon nag bu ñu bokk ci may boobu wëlbati ko sàkku ci xam-xam pour bëgg képp koo xam ne ñëwatu ñoom incha ñu saafara sa aajo. incha allah rabbi. tabarkalla. macha allah jërëjëf sëriñ Abdoulaye li ci bëri bëri gis ni li ngeen di toog ci réew mi bëriwul li ci bëri dëkk Afrique moo ëpp li ngeen teg seen tànk lan la loolu ginnaaw si daanaka ba ngeen sàkkoo xam-xam ba noppi. waaw xam nga dëkk Afrique daanaka dafa am ay wëlër yoo xam ne ay kilifa lan léeg-léeg bu ñuy soxlaa dañuy déplacé wu dem fekk leen lu mel ne lu mel ne dugg xalwaa yu mel noonu ñu defal leen ko gannaaw bi ñu ñëwaat moo tax daanaka toogaay bi du du bëri fii ci biir réew mi waaw jamono yi moom ñu ngi fi moom tabarkal mhm. lu waral xalwa bi ñu lay dàkkantalee yow yaa ko tuddee sa bopp wala dañ la ko dañ la koo tuddee waaw xalwa de xanaa yenn euh, clients ko tuddee mhm. dañoo xam naan Serigne képp ku jokkoo moom daal fexeel mu duggal la xalwa bu la duggal xalwa daal moom saa jëpp fayu waaw <laughs> ñoom daal ñu tudde ba borom xalwa alhamdulilah waaw tabarkàlla yaakaar naa loolu am na solo lan mbokk yi rek euh, numéro yaa ngi noonu affiché ci barre écran bi 77 460 70 89 wala benn numéro bi 77 123 59 24 fi ma jëm directement rek muy euh, Serigne Ablaye. Mhm. borom xel wala gis jigéen ñu ci bare bare. Euh, daanañ am njaboot maanaam di am tout tànk bi am doom waaye ñu mhm. jëm ci am jamono mu mel dañoo taxaw euh, loolee tam dégg nii tam dañ ci euh, da koy saafara lan moo waral jigéen bi taxaw li lan moo koy sabab lu ci bare bari waaw loolu dina ko def arab dina ko def liggéey dana ko dana ko def waaye bu ci maa doon rek am na ay tegtal yu wér yoo xam ne bu ñu ko defalee incha incha allah rabbi moom danga am doom gi diir bu gàtt waaw it na itina saatal mustaqima la ñuy bind cent onze wut sunguf kànja jënd ko neenu ganaar jox la nga def ko cangaay juróom-ñeenti fan waaye weer wi waaye weer woo ko sangoo boo boo tollee ci période ëmb parce que jigéen dafa am période muy ëmb ba boo ko sangoo leen li ñu wax nga def ko def ko noonu sa wàllu sàlla boo sëy nga ëmb. Uh-huh. rab ak lu moo doon day deñ booy sëy di ëmb. <laughs> billaahi la si laa ilaaha illaa tawarkaal. wala sëñ Tuubaa amul sikki sàkk. amul sikki sàkk boo see yomb. mais jigéen bi nga xam a am kooku da ngeen koy fàtte. waaw kooku xam nga léeg-léeg dafa am ñoo xam ne dañ leen dëj dañ leen dëj dañuy seq góor dañuy sëy nit di forcé wala am ku leen doon bëgg mujj am ñu dëj ko. bu boobu dañ nag xam nga ñu ngi koy defee ci xobu poftan lañ koy defee xobu poftan moo lañ jël bin tabaja daa ubbi dañoo war a ubbi dugal ci turuñ ki ko këpp ko loolu mooy dëj jigéen bu mënta am borom kër léegi boobaa bu ñëwee nag ñun ni ñu ko defee xam nañ ko waaye noonu lañ koy dundee ndax xam nañ ko defee waaye xam nañ ko dundee waaye nag duñ ko def nag waaye xam nañ koy dundee mais da ngeen dem ba ci fañ ko suul ko wala lan waaw maanaam xob boftan yooyu leen jël euh, xob boftan dañu jël jaas dem ci boftan bi gor ko yéen lañu jaaxaan bind ci tabaja daa am nañ ko bindee jox ko mu sangoo ko juróom-ñeenti fan bu ko sangoo mu muy deñ hmm, bu ko sangoo muy deñ <laughs> barke Sëñ Tuubaa mbokk yi muy jotaay bu dara am solo lool tabarkàlla euh, waaw li a xam si ñëpp lay ndax yéen dama gis ni booy wax da ngeen koy garanti ba jël sax daanaka mën nañ ne euh, da ngeen da ngeen ciy dëggu daal loolu daal la mm-hmm. garantie la wala wóolu sa bopp ba mu ëpp. non yor lu wér rek damaa yor lu wér laa yor barke sëñ Baar lu wér a wér yor lu wér rek. alhamdulilah yor lu wér euh, ñu ñëw ci wàllu jubóole gis nañ ni. Mm-hmm. soxna yu baree bare ak seen borom kër tàmbali bi dafay neex lool. Mm-hmm. waaye bu demee ba ci biir mu mel ni safara ak caas ñàkk jubóo boobeeg loolu euh, loolu tam ndax da ci taxaw. waaw yooyu da yooyu dañ ciy liggéey bu baax a baax gis nga aaya moom la moom la ñuy liggéey ubbi fi ñu war a ubbi fépp. bu fekkee ne eh, jëkkër jabar la ku nañ ku nañ jël sa tur sa ko def ko siifur. boole ba mu nekk benn lim ñu ko ci biir jël ko def ci ne sa morom nag ku ne da nga nam sa morom bu am nekk dañ jël turam turam ne turu baayam adat ko soq ko ci biir moom def ko noonu waaye famille bépp dañuy dañuy jubóo barke sëñ Baara ñëpp ñëpp dañuy juboo ku gis sama ram yéene ko jàmm ku gis sama ko jàmm te te loo am bëgg ko ko jox dese loxoy kase te te lépp ci Alxuraan lañ koy def tabarkalla lépp ci Alxuraan lañ koy def ñu ñëw hmm. ndax ñu bëri dañ naan cat cat xamuñu ak ku ñu liggéey waaw cat dafa am ku ñu ku ñu liggéey am muy ñaari question yu xaw a nuroo dafa mel waaw ah, te bokkuñu bu fekkee ne maanaam cat hmm. euh, cat ku képp ku mu jàpp ak koo mën foo a nekk hmm. cat li ñu koy dundee béy bu góor la ñu wut ak béy bu jigéen am nañ ci def ci béy yi lawetal ko buñ paree dagg làmmiñ yi bu bu ne làmmiñ bu ne ngeen dagg ko bin bind kii bi xaatim bi nga gis moom la ñu bind buñ ko bindee ba pare wut socc boo xam ne xamuñu borom ak yu ak fukki puso ak ñeent ak sungu si mu war a àndal yëpp jox la nga sang nga def ko bu fekkee góor ñett fan ñeenti fan bu dee jigéen ñetti fan waaye boo ko sangoo cat dootu la mën dara barke suñu baar cat la mën dara dara dara dara cat dootu ko mënal wa billaahi la si laa ilaaha illaa huwa mais nan ngay xamee ni kii ket moo ko jàpp kii liggéey moo ko jàpp. waaw loolu bu ñu ko xoolee rek ñu koy xam ba ñu wooyee rek incha ko ñu xam ne li la jàpp. koy dànk dañ ci doomu aadama de. ah dañuy wax rek. yow gëmoo loolu. man de gëmoo loolu te borom xam-xam yi may seetaan ñu ngi may dégg. ah waay waay sëñ bi sëñ bi loolu ñu ci bëri rek dañoo taxaw nag. ah dañuy wax rek <laughs> dañ ko weddi wax rek dañuy wax rek. mais ku ñu liggéey nag yow naka nga mën a kii ñu liggéey ko ba nga xam ne kii lu mu laal mu yàqu daanaka moom dafa yàqu ku ñu liggéey ba mu yàqu kooku kooku nooy defam. waaw waaw kooku dañuy wut ëkk goo xam ne ci armeel la sax. ëkk waaw gu sax gu sax ci armeel goo xam ne maanaam garab ci armeel xam nañ koo gor ñun am am am nañ fii bant bi moom lañ jël jël ci bant ba am am am mbind mun ko booleel xoj ko ci bàyyi ko ñaar fan seppi ko jox la nga nga di ko sangoo waaye lépp lu la ma def ci liggéey bon day dañ lépp day day toj day day yàqu fukk fan ak ñeent fukki fan ak ñett nga war a sangoo. mais mais mais mhm. ko ñu ci bari bari xam nga ni seen problème sangal cengal daanaka da am xam a dëj mënuñu sangu. waaw xam nga. wala xam nga ne Dakar ak yenn lieux yi moom. dañ mhm. dañ ñaan ñoom sangu dañ leen seen problème. Mhm. waaw xam nga maanaam euh, am na ñoo xam ne euh, dañu am euh, àndandoo boo xam ne daf leen di tare lépp lu leen di jëriñ. waaw. maanaam boo amee àndandoo boo xam ne xamoo saraxam lépp lu la jox mu di la jëriñ rek dala koy tare wala boo ko war a def mu taayal loola loolu àndandoo moo koy def ci ay nit léeg-léeg tamit euh, liggéey bu bari na ko def hmm. waaye lu ko doon inshallah rek moom dañ ko indi mos a wicc moom wicc lay def alhamdulilah mais ku ñu nag xam nga nee naa la jàpp liggéey a ku ñu mhm. dëddale loolu dafa ba loolu la de moo dëddale ak ak ku ñu liggéey. waaw xam nga xam nga dëddale moom boo xoolee ba tey daal dugg liggéey rek ku ñu ku ñu liggéey rek waaw bépp liggéey boo xam ne liggéey bon la dañ koy dindi dëddale nag daañu ko def. ci ban anam. <laughs> naa dina naqaree ñu may seetaan ndax nit ñi ñi am dégg ko mën a waxee maanaam comme xam ne da nga am doom bu jigéen muy ànd ak koo xam ne bëggoo mu ànd ak moom loo xam ne yàq wala nga am doom bu góor muy jigéen ñoo xam ne dañ ko yàq mm-hmm. kooku boo ñëwee boo joxe man sara mën nañ ko dëddale mu ne euh, turu yàlla yu ñu wax yaa musilu moom la ñuy jël ci lañ koy liggéey wut juróom-ñaari doomi kaani ak juróom-ñaari doomi poobar ak soble bu ñorul ak morso bu ñuul liggéey ko par suur suur ko ci ab sën waaye ñoom ñaar comme xaj ak mus dootuñu dootuñu laale fenn. waaye sëñ bi ba nga am doom nga am doom bu ko mu bëgg mu yàqu. wala nga am doom bu góor mu am mu ànd nga xam ne da nga toog di naan sàngara. waaw kooku ñooñu nga dëddale ko ñoom loolu du njabar loolu ak da nga koy d' accord parce que naa ngi lay dégg. Mhm. mais fi ma jëmaat. Mhm. Euh, waa sëñ bi xam nga léeg-léeg tamit ba mu ànd ba ñëw. wala tey mhm. mu ne bëgg wujju. wala bëgg ma damaa bëgg ba nga def sa borom kër gi du am wala wujju bi damaa bëgg ma mu génn kër gi lan xeetu liggéey yooyu est ce que léeg dinañ la koy sant nga koy defam déet. waaw loolu nag bari na ñu ko sant nag daanaka man moom maa am ful ful boo xam ne boo ñëwee wax ma ko moom doo ñëwaat mais sëñ bi est-ce que écran bi li mu la tiima tax tam xam nga tam am na ñoo xam dañuy wax loolu waaye tam damay rek wallaay liggéey bon du ma ko def ah. du ma ko def waaye comme li ma la wax nii ci dëddale bi moom ko xam na nga am doom doom doom bu jigéen mu topp ñoo xam ne du noonu war nga doom bu topp ñoo xam ne noonu boo ñëwee ma taqal la ak ñoom bu fekkee ne ak sa ak ak ak it sëy boo xam ne warut am parce que am na sëy yoo xam ne mënta nekk mënta nekk am na sëy yoo xam ne mënta nekk d'accord mënta nekk. kon dégg-dégg la laaj. Mhm. dégg-dégg dégg-dégg la laaj am na yoo xam ne moom mënta nekk. waaw ok mbokk yi kooku mooy euh, sëñ Abdoulaye borom euh, xelwa tabarkàlla ñuy euh, yëngu ci jotaay ci wàllu li nga xam seen jotaayu kàggu mag ñi tabarkàlla di leen fàtt rek ni numéro téléphone yaa ngi noonu 77 460 70 89 wala beneen numéro bi 77 123 59 24 fi ma jëm mooy kër goo xam dafa bëri wax. Mhm. coow suba coow ngoon maanaam maanaam. fay wax daal maanaam ba nga xam ni daal kër gi daal ku fi dugg da nga xam ne da nga gis borom kër goo xam ne macha allah xëy na du denc benn soxna daanaka mën na yor ay soxna waaye dafa mel ni kër gi daal coow mënu faa jógee lay xam nga loolu oh, loolu dañ koy liggéey ci bopp golo lañ koy liggéey kër goo xam ne dañuy xoolal suba ngoon kooku bopp golo lañ la jël bind Isaaya Isaaya Nasrullahi 114 moom la ñuy bind Isaaya Nasrullahi wut juróom-ñaar doomu ren juróom-ñaar doomu néew bind xaatim bu ñu wax xëy bind xaatim mu ñu wax waxee li xaleeg mahabbatu min nii adapté te dóor ko ci biir boole ko ak ak ak saa saa jaan nga suul ko ci kër ga gis boo ko fa suulee dinañ juboo kër ga wërsëg bi kenn ko mën a te kër ga dina am njaboot te dépp dépasse dafa dafa ñàkk. te loolu xam-xam bu baar bu wér bu wér péng laa la wax man la li may wax ragal ma damaa yor lu wér laa yor. te loolu njabar xam nga njabar ak ñaan bokkuñu. njabar ah, njabar mooy loo loo xam ne da nga ko def di yàq ay nit. ak loo xam ne yaa ngi koy def waaye defoo ko ci turu ci alxuraan di ko yaa ngi def ci leneen loo xam ne du alxuraan waaye li ma la wax nii lépp alxuraan la. alxuraan li ma la alxuraan la. kon d' hmm. loolu daal bu ko defee kër gi am jàmm. dina am jàmm ñëppay juboo. muy entreprise yeeg yëpp. ñëpp ñëppay ba ba pare dépasse du ñàkk. waaw mais ki da ngay gis ñoo xam dañ naan la nekk naa ci entreprise maa ngi fay am jàmm ak salaam dox ba mu yàgg mais dafa mel daal dañ ma faa daal dafa am ñoo xam dañ koy teg seen gër euh, ku xam nga kooku Euh, xaatim bi yursul sama medd midd moom la ñu jël liggéey ko mhm. dugal turu ki nga xam ne moom moo entreprise bi ci biir moom moo xam ne maanaam moo jiite nit ñi moom la dugal ci turam ci biir ak tur ki nga xam ne moom a dàq mhm. mu ko defee ci biir wut meel boole boole ko ak moom mhm. mu suul ko ci géej fu wala fu sedd guyu waxee daq moom dootu ko wax wax wax waxi dàq dàq damay dàq di moom pare na ci dootu ko wax. ak lu mën a xew moom dootu ko wax loolu moom pare na ci moom leneen la ñuy wax. waaw tabarka waaw macha allah mbokk yi muy lu am am solo euh, tam mooy am benn loo xam tam dañ koo séntu. Euh, gis mhm. ci ci ci jamono. Mhm. Euh, moo xam nga mhm. am na ñoo xam sax dañ naan la xam da nga xam ne day am natt boo xam ni. toog du ko mën mu mel ni loolu am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne tayef la am ñoo xam ne neen du tayef koo xam day dem rek du toog waaw xam nga am na ñoo xam ne moom dañoo bari bu dox. moo xam góor xam ne am nga jabar waaye boo wàccee war a fanaan sa jabar di taxawal di wërëwër rek. day am tamit jigéen ñoo xam ne maanaam dañoo am jëkkër. duñ topp sa njëkk di dox def nañ fu nañ dugg fa kooku boo ñëwee aay bi ci la koy liggéey bu ñu dugal ci biir tëj ko yox la nga suul yox nga yox la nga takk ko ci kër ga bu fekkee ne góor la bu wàccee ci kër gi dootu dem fenn fekk suba gis du pour mu war a xëy bu dee jigéen la tamit tànkam doot ko génn kër gi te heure bu génn na tàggu jëkkëram mhm. dox bi moom da ko arrêté moom ci saase moom waaw moom waaw mu li koy liggéey lu wér a wér dara tukki dañ loolu daal garanti la su may dégg dara tukki dañ laa la wax alhamdulilah mu mel ni li ngi des simili euh, bëriwul lool euh, fi may doxaat rek tuuti rek mu nekk li nga xamante ni am na solo tam euh, sëriñ Ablaye borom xel xel ba mu mel ni loo xamante ni am na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe maanaam comme ma waxee rek xam naa loolu damaa yaakaar ne xanaa kon ki mooy ki nga xamante ni daanaka mënta bàyyi li ñuy tere muy tuux ak naan <laughs> butéel demee ni mel <laughs> euh, wàllu xeetu xamante ni daal daanaka da xam ne kii ci jamono moom ay ay wéy mhm. mhm. xam nga loolu moom euh, dafa am spécial euh, xaatim mhm. ni koy sàcc wala ni koy naan ni ko bëgg a bàyyi tux xaatim xaatim bi moo nekk nii spécial la spécial la pour pour kuy tux wala wala ngay naan wala ngay sàcc wala nga dëkk ci njaalo waaw yooyu yëpp bu mu ki doon rek incha allah bu ñu ko liggéey la pare wax wax li nga koy booleel nga jëfandikoo kooku moom dootu ci def benn moom. sa sa xase dootu nekk sa xase dootu nekk. ku ñu nawtal nag ku ñu nawtal maanaam muy dem rek. Mhm. nekk ay àll nekk àll ay at at mënut a dellu si. waaw maanaam kooku dañ koy liggéey ci inno xalaat ci la xaadiru ci lañ koy liggéey bu ñu jëlee turam àdduna ko turam tur baayam ak fu mu mën a nekk ci àdduna. fu mu mën a nekk ci àdduna bu ñu bu ñu bindee xaadim ba pare bind xaadim ba pare inno xalaat ci la xaadiru la ñu jël ab lim la mu koy def. lenn li bu nga defal ñaari téere la benn téere bi da ko tàkk ca kër kër ga mu dëkk benn bi ka ko bëgg a gis moom la ma wax ko takk benn benn bi benn bi ki des nag li ki des nag moom ñoo koy wérdi fu mu maa nekk ci àdduna bi ak lu mu sori sori day ñëw. waaye bi sëñ bi. Baar lu mu sori sori day ñëw. waaw sëñ bi est-ce que naa la laaj benn laaj. Mhm. ndax tey ñu bëri ñu toog tey ne lan moo tax lu ñu leen laaj rek ngeen ni mën ngeen ko. yéen en tant que yéen ñi féete ci wàllu euh, lasraar bi daal. am na ñoom xam nga xam nga li ma xam nga li ma la wax profil weesu ko. mais mais ñoom ñoom ñoom seen bopp. waaw xam xam nga nit ñi moom dañuy wax rek nit ñi moom dañuy wax rek li ma la wax nii preuve Facebook man lépp li may wax secret yu wér laa koy lu wér wér wér te li ma la wax nii preuve yu wér la. est-ce du leen déranger léeg-léeg. duñ leen laaj ñu ne ngeen ko yéen yéen wax boobu du leen xaw a déranger. waaw xam nga xam àdduna moom coole moom fépp la nekk même politicien sax mu ngi ci fépp la nekk sëriñ si ñëpp la nekk sëriñ si moom dañoo am bayra rek moo tax li ñu sos mu jël sotti leen ko <laughs> waaye fépp la nekk jërëjëf mbokk yi mu mel ni rek daanaka fii ak ñaari simili rek daanaka euh, daanaka sax euh, dama naan ay benn simili wala ñaari simili ñu war a yëkkati ndar képp jotaay bi mm-hmm. euh, góor gu mënul boppam ci biir néegu sëy maanaam mu néew kàttan loolu mu nekk loo xam ne lu sonal askan wi muy phénomène mondial loolu ci sunguf nga koy doxee wala ci lasaraan nga koy doxee non man du ma jox sunguf ah waaw man du man du ma joxe sunguf pour naam naawati nag pour ci yeneen bagage mais lépp lu jëm ci biir man du ma ko joxe sunguf mbind lay doon alxuraan rek mbind lay doon bu fekkee ne maanaam da ngaa kàttan ay baat la yoo xam ne bu ñu ko liggéeyee ba pare moom la moom lañ koy booleel ay baat yoo xam ne bu ñu ko liggéeyee ba pare am nañu koy booleel mais nag du nekk sunguf bu ñu ko booleeg moom jàmb ko ba mu kii jox la ko nga ko jëf nag par kaas waaye da nga am kàttan bu baax ba fekk tamit da nga bëgg a yokk sa sàkkara am am ñoom seen cër dafa gàtt. mais ñu bëri nee la nag sëñ bi. sëñ bi la la si billahi la si wax. yokk yokk yokk yokk sàkkara du njabar te du ngi dara man dama la ko def pare dama la ko def pare du wàññi dara dama la ko def pare jox la nga ko jëfandikoo di xool doo ko doo naan da nga ko da nga ko jiddiw te du sunguf. ar ar la laa la wax ma am yoo rek delluwaat dañuy dañuy wax rek. kon yow loolu lu wér la. Mm, même wàllum seet sax. waaw xam naa ne euh, dina ki dugg parce que. damay dégg léeg-léeg ñu bari di wax naan seet seet seet nangam nangam waaye gis na seet. dafa am ñeent seet ba juróom ba juróom-ñaar. Mm-hmm. am na seet xott xottu gerte. Mm-hmm. am na seetu ndox asaan naa ko jumaa naa ko taakoon ko kooku seet ndox la am na tamit seet seetu juróom wi seetu juróom moom man maa ko fi seet fii ci réew mi senegal gi ñu nekk. juróomi. juróomi 25 francs rek 25 francs ji moom moom laa jël teg ko sama loxo bii yàlla si wa gën a doon Souleymane bu Daawuda gine gi yonent yàlla Souleymane yonent yàlla Daawuda moom laa woo ci juróomi mu ñëw ma laaj ko ma bëgg am gi nit ki boobu gisuma seet bu ko gën a wér fii ci Sénégal barke Sëñ Touba. waaw waaw sëñ bi loolu est-ce que maanaam loolu est-ce jinne wax kon nañu waxante dëgg. waaw jinne la maanaam jinne yi nga xam ne maanaam jinne yi nga xam ne maanaam xawma junne mais gis nañu xam ne moom la yàlla boole doon yonent yàlla Suleymaan ak yonent yàlla Daawuda mu di leen ay xibaar daa leen wax li xew ma gis na jooju laay woo ci mu ñëw ma laaj li ma xam ci nit ki moo xuma ko ma ne seet boobu réew mi kenn yoru ko fi laal bu ko fi kenn bu ko fi benn boobu xam ne kii kilifa la lay doon waaye ñi ma gis ñi ma ñi ma gis ñi ma gis ko ko yor ko ko yor wax ko juróomi dërëm laay jël teg ko yaa leen si wagi nodduhum Suleymaan bun Daawuda am am la ma waxaat tufle ko ci mu ñëw ma laaj ko lu ma bëgg xam ki nit ki dara du ko dindi ma ne la seet boobu mi ngi nekk kenn jëru ko fi ku ko fi yor na ko wax léegi ki nga xamante ne maanaam euh, euh, caabi da ko féete ginnaaw euh, kooku ci bu ñëwee da nga koy xool ci ko léegi lii moo koy dindi wala loolu beneen anam ko xam ne dañ laa tëj kaso kooku am na ci ñaari secret yu wér billaahi lu yu wér a wér a benn bi dañ koy liggéey jox la nga boole ko yàpp dëj togg ko yóbbul ko mu lekk waaye bu ko lekkee du ko demee toilette ci kaso ba kooku est-ce billahi dama ko garanti bu ko lekkee du ko ma ci kaso ba laa la wax. bi ki des ko liggéeyee pare da koy lekk te bëñam laal kenn du ko liggéeyanti boobu sax bu fekkee da nga am problème tribunal la ñu war la gisee bu ñu la ko defaree rek nga lekk sa bëñ laal boo demee da nga yeey. kon yow da ngay jàppale tënkat. non loolu sax mais xam mais xam nañu wax xam-xam rek. waaw ma la xam-xam yëpp am na. yow doo jàppale xam nga dañuy xam-xam rek xam-xam boo xam-xam boo xam-xam léegi xam-xam nag moom benn ndox ndox la moo xam ne boo ko roosee ci yamba mu sax boo ko boo ko roosee ci naana mu sax xam-xam loolu la. xam-xam am ndox la rek moo xam ne foo ko roosee mu jëm mu jëm fa. tabarkaal la waaw. sëñ waxtu bi dab nañu. Mhm. mu mel ni amaat nañ yoo xam ne war nañ ko mhm. euh, lu bare bare bare dinañ ci waxtaanaat. Mhm. mel ni dootuñu la bàyyi duñu bàyyi jotaay bi. dañ ko daan ko wéyalaat lay tàggatoo. waaw xanaa di leen nuyu bu baax te di leen jéggalu bu baax di nuyu mboolem ñi setaan di wax ne képp koo xam ne daal yàlla dogal na daal sa mbir na sa fay ba ma woowee yàlla yàlla ma ma jot waaw di jégalu ñëpp bala ak ñëpp nag. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu santaat nañ ko beneen yoon di sëriñ Abdoulaye borom xalwa tabarkaale gis ngeen jotaay mu nekk jotaay bu am solo lool mbokk yi di ko santaat bu baax a baax euh, di ñaan allah rabbi subhanahu wa taala doole guddal fanam doole ko defal tawfiix ak taysir nag yaaxa defal ko saxab daa leen ci barke euh, sëriñ Touba Xadim Rasul ci barke sëriñ Baara mu yàgg fi loolu te ànd ak yow tam di yàgg lool di euh, jëflante ak askan bi macha allah tamit ci xam-xam gi nga xam ne itam moom lay doxee bu baax a baax numéro téléphone yaa ngi noonu affiché ci barre écran bi 77 la 460 70 89 wala beneen numéro bi 77 123 59 24 ñu di ko santaat bu baax a baax di nuyu mboolem équipe technique technique bu jàmm ji info point net ci wàllu éclairage beeg caméra beeg montage bi laay fati fatigaaw liggéey baa di ko sant bu baax ci wàllu réalisation bi Coumba Ndoffène Diouf ci wàllu présentation seen jotaayu kàggu mag ñett seen mbokku taalibe Mouhamadou Lamine Mountakha <laughs> yàlla mi borom jàmm teet ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla yàlla sa borom bi doon la ñu defal jàmm